loo def it waxuma ko rek da dem ci ceeru ndaw wala nga dem ci bandi waaw ah. boo demee loo loo may laaj loo may question ne ne taal faal ñoo mën a dàq wala question ne fo te boobu gëmuñu ko sax dañ doon nañ nañ seet nañ seet bàyyi faal ndax wax dëgg <laughs> dafa am benn bis mu mu am ku may ku may laaj ci rajo uh-huh. daal di ma ah dëgg bàyyi faal dana njàng ah. ma ko lim ma mu ni teg ma ne ko yow xamoo lim ma dong <laughs> ah di ma yow ko yaa jàng li ma dong xamoo ko ngir lan xamoo ko jaalaat ngaan ma lu tax jàng man sëñ Cheikh Mbacke jàngal ma saa bàyyi jàngal ma alxuraan jox ma sëñ Cheikh Mbacke ma dale fa tasawutu saxaar ci daara dër bi ne maa ma bi téere doo doo ko gis waaw kon nag loolu dafay ne waxuma ko rek da ngaa ci cerum la wala nga dem ci bandi waaw boo demee loo loo may laaj loo may question ne ne Talla Fall ñoo mën a dàq woon a question ne foofu te boobu gëmuñu ma sax dañ doon nañ nañ seet nañ seet Baye Fall ndax wax na dëgg dafa am benn bis mu mu am ku may ku may laaj ci rajo daal di ma ah dëgg Baye Fall dana jàng ma ne ko lim ma mu ni teg ma ne ko yow xamoo lim ma dong <laughs> ah di ma yow ko yaa jàng lim ma dong xamoo ko ngir lan xamoo ah. ko ci alaat naan ma lu tax jàng man sëñ Cheikh Mbacke jàngal ma saa bàyyi jàngal ma alxuraan jox ma sëñ Cheikh Mbacke ma téléphone eh, eh, tasawutu saxaar ci daara bi di jàng te ba fii ne maa ngi jàng te boo noonu doon dëkkalee ku ma bi téere doo doo ko gis waaw kon